أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi noo ngi ànd ak yéen ci téere borom bi tabaraka wa taala ci kàttanu borom bi tey ñuy jël ñaari aaya ba tey ci suura al araf aaya 42 ak aaya 43 ñetti aaya yu nekk sunu kanam sunu borom subhanahu wa taala dañu ci jàngal juróomi mbir ci aaya yooyu yooyu ba ca njëkk mooy al iman wal amalu saalix mujibaani li duxulil janna ñu war a xam ne ñun népp ñaari mbir yi mooy tax ëllëg ab jaam tàbbi aljanna ñaari mbir yooyu ba ca njëkk mooy al iman mooy ngëm yàlla mbokk yi dara du dugal nit aljanna ëllëg lu dul mu am ngëm laa tadxulul janna hatta tuuminu gis nga yonent moo ko wax du ngeen dugg aljanna mukk mukk mukk mukk lu dul da ngeen am ngëm yàlla kon ku bëgg a dugg aljanna sa premier ngànnaay boo ngànnaayoo mooy gëmal yàlla tabaraka wa taala ñaareel bi mooy al amalu saalih gëm yàlla ba pare tamit dem tëdd di nelaw tëdd fële nit ñi di jaamu yàlla nga tëdd doo def dara du la tax nga dugg àjjana foog nga boole koog jëf ju baax al amalu saalih xam ngeen jëf li tax muy baax mooy foog mu dëppoog alquran ak sunna jëf ju baax mooy jëf ju la yàlla sant yonent bi won la nuñ koy defee su boobaa la jëf di baax waaye ñu ne jëf ju baax rek nga xëy yor sa bale di bale tali bi ñu wax nga ne lii jëf ju baax la da ngay perte ëllëg yow mal qiyaam mu ne ñaar yii mooy sabab ëllëg ab jaam dugg aljanna waaye beneen bi mooy ñaar yooyu mooy tax ab jaam am taraanga adduna ak allaaxira mosu leen gis yàlla bind jaamam mu gëm ko moom yàlla waa jooju nekk ci jaamu yàlla nekk ci lu baax yàlla xañ ko taraanga àdduna ak àllaaxira loolu kenn mus ko gis kenn du ko teg bët léeg-léeg nit ñi danañ juum juum bu méttee métti mooy lan jàpp ne ku gëm yàlla du feebar ah kay ku gëm yàlla du xiif ah kay ku gëm yàlla du am ay natt ah pourtant moom day julli de loolu du benn amul amul raison julli ak nattu du benn pourtant moom gëm na yàlla de pourtant moom day jàng alxuraan de waaye lii nu mu ko mun a dalee ah kay daf koy dal c'est parce que nattu la alif lam mim ahasiba nnaas an yutraku an yaqulu baat baa ngoog saa yu ne gëm naa yàlla rek nattu yi commencé yàlla di xool ndax gëm gi nga wax dëgg la kenn musul wax ne man gëm naa yàlla lu dul yàlla dina teg nattu sa kaw pour xool la ndax ngëm gi ngay woote dëgg la wala du dëgg yàlla neen da ngeen di yaakaar ne da ngeen naan gëm ngeen rek ma bàyyi leen noonu déedéet ñi ko waxoon démb teg naa leen ay fitna ba ma xam ña dëggu woon ci ñoom ak ñu dëgguwul fala yaalamanna allahu alladina sadaqu wala yaalamanna allahul kaadibin kon loolu dafa war a leer ci ñun ñaareel bi mooy la machaqa la tatahammal fi diini sahih alladi jaat bihi rusul illa ma kaana uquba dafa war a leer ci ñun ne diine ji yàlla jox ñu amul luñ ci yàlla teg ci ay coono ak ay métit amul ma jaala aleykum fi diini min haraj diine yàlla indi lu luy sonal nit ñi au contraire nit ñi tey li leen sonal yëpp da ngay fekk yàlla sant leen ko yonent sant leen ko wala julli kan la sonal julli ngeen gee timis ba pare wala julliwu leen julli ngeen julli ngeen timis wala julleegu leen kan moo sonn bi mu julli timis loo ci daj yan coono yan effort nga def yan yan temps nga traversé pour nga julli timis ah jëlewoo ci dara jàng alxuraan nit dina ci jële coono def azkar toog xoolal bi nga jullee ba pare astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salaam wa minka salaam wa tabarakta ya zal jalali wal ikram allahumma inni ala xoolal loolu ban coono nga ci dépassé jaamu yàlla amul coono saa yoo gisee nit son ku la ne "Ouh!" yàlla sant ko loolu xoolal sunu diine lépp yàlla daf ñu ko yombal bañ na ko ba mu ne yuridu llahu bikumul yusra wala yuridu bikumul yusra yonent bi sax bu daan yónni ay nit ne leen dem leen ngeen woote ji danaan leen lan yassiru wala tuassiru yombal leen a bu leen jafeel mbir mi innama bu istum mu yassirin yàlla da leen a yónni man yonent bi maa leen yónni pour ngeen yombal mbir mi moo tax ñu ne ku woo ay nit nit ñi wuyu siwuñ la yow yaa wootewul woote bi ni nga ko war a defee ku woo ay nit ci lislaam nit ñi ñëwuñu yow ni nga wootee baaxul yaa war a seetaat sa woote lu tax ndax innama bu istum mu yassirin démb jàngal wax naa leen xutba bi dimaag ba mu ñëwee mu dégg màkk ñu ne yonent bi dafa dof xale bi nekk fi daal di woote dafa dof kii laaj na ko ko mocc de te moom moccukat la mu dajeeg yonent bi mu ne ko man de wax dëgg yàlla ñu bëri wér nañ ci sama loxo ñu bëri wér nañ mocc naa ay nit ñu bëri ñu wér te ngaa ñëw mu mocc la yonent bi ne ko waa xaaral déglul yonent bi ne ko inna alhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa naudu billahi min sururi anfusina wa min sayyi jàngal ko xutbatul xaaja la ko yonent bi jàngal dimaat mu ne waxaatal yonent bi waxaat mu ne ko waxaatal yonent bi waxaat mu ne ko man xam naa bu waxu bu xaaba xam naa ko xam naa waxi njabar xam naa waxu woykat te daal sa wax ji ñetti wax yëpp du ci benn xam nga nooy def da ngay tàllal sa loxo ma jaayanteeg yow yow dëgg-dëgg yàlla la yónni kan moom mocc moroomam moom daa ñëwoon mocc yonante bi yonante bi mocc ko waaye xam nga lan moo lan moo lan moo yéeme ci daggit bu ndaw boobu mooy li ma doon wax démb juma xutbatul xaaja ñun ñi ñaata at lañ ko dégg bañ juddoo ba léegi ñu ngi koy dégg lan la def ci ñun kii tey la ko dégg dundam yëpp changé mu génn ci kufru dem ci imaan tey la ko dégg te yamul ci moom de mu ne ko yow ak sa njaboot waa ji ci boppam génn ci kufru waaye dem génne fameem ci kufru te xutbatul xaaja doo nga la dégg déggul alxuraan looloo defar dundam kon diine mbokk yi lu ñu yàlla indi luy sonal nit amu ci amul lenn lu nit di yenu ci diine ëllëg ba yàlla mbugal ko ci saa yu la yàlla mbugalee da ngaa bàyyi diine bi kenn du jàpp ci diine yàlla di la mbugal mukk ci àdduna nga dem alaaxira yàlla mu ne la yow da nga doon julli moo tax da ngay dégg sénégalais yi ndeysaan bu ñu bëggee caaxaan da ngay dégg ñu ne non nit day julli ba dee dem safara nit mun na julli ba dee nit mun na woor ba dee dem non non jaamu yàlla yóbbul kenn àjjana loolu du dëgg. mës ngeen gis yàlla sant nit ne ko jaamu ma waa ji nekk ci jaamu yàlla ba pare nag te sénégalais yi chaque jour ma wax leen yenn saa yi da ngay moytu sax di leen laaj yenn question yi da ngay dégg ku ne waaw amoon na benn imam imam bi bi mu deewee benn sàcc dee ñu yóbbu leen ñoom ñaar ci armeel yi imam bi suñ gasee paxam safara génn sàcc bi buñ gasee paxam meew génn loolu mooy waxi lan yooyu la ñuy naxi nit ñi lu ko waral imaam bi waa ji ndaw si dafa xiifoon xaw ma waa ji dafa xiif ñëw këram mu génne ko sàcc bi ne ko xaaral dem sàcc jox ko mu lekk mooy waxi lan yooyu waxu picc yooyu yooyu waxu léeb la jullit sax warul nangu yooyu tey nag yooyu la ñuy naxee nit ñi yooyu la ñuy naxee nit ñi su nit jullee dem safara julliwul julliwul da doon julli julli lu muy julliwul su nit jaamoo yàlla yàlla duma ko jaamuwul da doon jaamu jaamulu waaw kenn du jaamu yàlla ndeysaan sànq damay liir benn benn document ma dajeeg benn texte bu ma frappé gaa yi dañoo génn ndeysaan ci àll bi di woote jëme nit ñi ci yoonu yàlla ñuy dem ba càgg ñu dajeeg benn waay buy jaamu xërëm waa ji toog na ci pax boobu ci xur woowu waa ji def na fa fukki at di jaamu xërëm bi moo ngi ñoom moo ngi ñoom ay question moo ngi ñoom moo ngi ñoom moo ngi ñoom moo ngi ñoom moo ngi ñoom ba gaa yi génne ko ci xërëm boobu mu dugg ci lislaam mu topp leen mu ànd ak ñoom mu ànd ak ñoom di leen laaj ñuy tontu di leen laaj ñuy tontu ba guddi jot léegi dugg na ci lislaam guddi jot ñu lal seeni sër ci àll bi tëdd di nelaw mu yee leen ne leen yéen yàlla ji ngeen ma woo ma dugg ñu ne waaw ndax yàlla jooju day nelaw gaa yi ne ko kooku du nelaw mu ne yéen jaam yu bon ngeen seen borom du nelaw ngeen di nelaw mu lal kaala gi naafi la ba fëdd sat te tey la dugg ci lislaam mu ne leen yéen biisal ibaad antum rabbukum laa yanaamuuna wa antum tanaamuun waaw akbar xool chaque jour gis nga affaire yi du ay làmbatu yéen jaam yu bon ngeen yéen yàlla ji ngeen gëm du nelaw yéen ngeen di nelaw te tey la dugg ndeysaan gaa yi ànd ak moom ba dëkk ba ne nit ñi kii kat ku tuub la ku bees ku dugg ci lislaam gaa yi xam nga rek bu ñu nee ki ku tuuba ngi nii même fii ci dëkk bi gaa yi génne lu ñu yor yëpp dajale ko indi ko mu ne leen lii pour lan la gaa yi ne ko ah yow da ngaa dugg ci lislaam ku bees nga mu ne man ma nekk ci pax moomu di jaamu xërëm bi fukki at kenn joxuma dara ma dugg tey ci lislaam di jaamu yàlla kenn ñu may jox kon man li ma dugg wérul tax bi ma nekk ci xërëm bi kenn joxuma woon dara te muñ naa ko toog foofu waaye jël leen li ngeen yor waaye ngeen bàyyi ma ki ma gëm kooku dana ma jox te te tey la dugg xoolal ni mu rawee xoolal ni mu rawee ñi ko dugal moo tax nit dina mujjee ñëw ci diina ji sax raw la ku weddi loolu jàngal xissa Muaz ibnu Jabal six ans la def ci lislaam six ans six ans la Muaz def ci lislaam bi mu deewee arsh dafa yëngatu bi mu deewee soixante-dix mille malaaka ñoo ko gunge ci armeel yi bi ñu gasee bàmmeel bi parfum moo doon génn six ans la def ci lislaam six ans ñun ñaata lañ def ci lislaam ci lañ judd ci lañ judd ñu xoolal fu ñu toll ba tey mënuñoo pa bouger benn pas foo ñu xoolaat suñu bopp mbokk yi lislaam amul coono lislaam amul jafe-jafe ñetteel bu ñuy jëlee ci aaya yi mooy la adawata wala xasada fil janna nit ñi bu ñu duggee aljanna yal leen fa yàlla yóbbu kenn du fa noonoo aljanna amul noonoo aljanna amul iñaanante soxor tey ci àdduna fii nu nekk nii di nga gis sax yenn saa yi loo nekk jullit jullit nga dëkk kenn sa mbokkum jullit wala ngeen bokk sàpp wala ngeen bokk kër wala ngeen bokk liggéey sa xol bi am na lu ko benn ñagg-ñagg bu mu bu mu ko téyal aljanna nag bu ñu fa yàlla yóbboo même bu ñu toogee dañuy jàkkaarloo amul wanante ginnaaw lu tax ndax ñagg-ñagg moo fa dul am moo tax foofu rek mooy kër gi lu nit sonn lu nit def pour dugg foofu jar na ko ndax foofu laa adaawata amul noonoo wala xasad amul iñaan fii ci àdduna nag noonoo du jeex sa soxna sax da ngay noonoo ak moom say doom sax yenn saa yi ñuy ñaane la yow sax baa ji yenn saa yi ñeenteel mooy alhidayatu xiba min allah fala tutlab illa minhu njub ci loxo yàlla la nekk ci yàlla lay bàyyeekoo léeg-léeg nga bëgg sa waay baax munoo ci dara du baax léeg-léeg nga bëgg sa doom baax munoo ci dara du baax ndeysaan léeg-léeg nga bëgg ni yàlla jubal léeg-léeg nga bëgg ndeysaan sa mbokk baax du baax barki démb damaa dem benn kër di rek la ji problème diggante ñaari way dencante ma wax ba génn ndeysaan ma yaakaar ne am naa ndam parce que gis naa jugoo nañ ci bi ma fa nekkee ba ma génnee ba bi may egg sama kër woo naa leen waa ñu ne alhamdulilah balaa may tëdd rek mu woowaan ma mu ne ma yaay ndaw si ñëw na ànd ak ñaari njabarkat ma ne ko léegi nag mu ne njabarkat yi seetal nañ ndaw si nee nañ ko kii def laa bëgg a rey indi keneen takk ko dugal ko ci kër gi léegi kër googu ni ñuy fanaanoo jigéen joo xam ne yaa ngi waaj a tëdd ay njabarkat ñëw la ànd ak sa yaay ne la sa jëkkër dalaa bëgg a rey takk keneen indi ci kër gi nooy fanaanoo yaa ngi moom mooy kër ga explosé na moo tax li ñuy tere mooy njabarkat ku dem ci njabarkat bi ngay dem rek par génn nga ci lislaam pare nga su la waxee dara nga gëm ko moom génn nga ci lislaam man ata arrafan aw kahinan fa saddaqahu bima yaqul ku dem ci njabarkat mu wax la dara nga gëm ko yonent bi nee na la sa la tuqbal salaata arbaina yawman kenn du la nangul julli 40 jours su la waxee dara nga gëm ko nag kooku qad kafara bima unzila ala muhammad mooy génn nga ci lislaam te loolu moo bëri suñu dëkk bi ay njabarkat ay buxaaba ay seetkat ay gisaanekat seetal ma waay seetal ma sama mbir mi seetal ma ko seetal ma ko seetal ma ko allahu akbar mbokk yi njub ci yàlla la bàyyeekoo alhidaaya min allah munoo uti fenn njub kudul ci yàlla moo tax ci yàlla lañ koy sàkk ñu ne kenn du uti njub kudul ci sunu boroom moo tax ñuy ñaan chaque jour di taalal yàlla sunuy loxo di yàlla di ñaan yàlla njub parce que njub ci loxo yàlla la nekk chaque jour ci suñuy julli am na ñaan bu ñu yàlla jox ne nañ ko ñaan pour ñu jub beneen bi mooy wala yaxsulu alayha illa bi talabiha minhu taala kenn munta am njub lu dul ci moom borom bi tabaraka wa taala ci moom nga koy sàkkoo mu defal la ko waaye waaw dem feneen ak liggéeyal keneen ak def ay caaxaan taxul nga jub mbaax ci loxo yàlla nekk yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon na bëgg abu taalib dugg ci islaam daal di jub lan la ko yàlla wax innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha innaka yow muhammad yëgal ne laa tahdi doo jubal mukk man ahbabta ki nga bëgg mu jub mënoo ci dara walakin allah yahdi man yasha waaye yàlla mooy jubal ko ko neex waaye yàlla nee na yonent bi wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim giñ naa ci sama màggaay yow muhammad da ngay jubal nit ñi ci yoon bu jub yàlla yemul ci loolu yàlla da koo joxoñ baaraam ne wa in tuti uhu tahtadu su ngeen ko toppee jub moom dong moo am loolu su ngeen ko toppee rek jub kon la moo tax jubuñu dañoo bañ topp yonent bi moo tax duñ jub beneen bi mooy saa yoo yaakaar ne am na njub bu gën njubal yonent bi génn nga ci lislaam jàng jàng ngeen nawaaxidul islaam wala jàngu leen ko nawaaxidul islaam ñaata la achara fukk la am na ci benn tomb képp ku gëm ne am na ku fi indi leneen lu gën a jub li fi yonent bi indi génn nga ci lislaam sa islaam yàqu na kon moo tax bala ñuy dugg même ci suñu tarixa yi bala ñu ci dugg dañ def attention saa yoo gëmee ne tarixa bi moo gën li fi yonent bi indi génn nga ci lislaam saa yoo indee ñaan bi waa ji indi moo gën ñaan bi yonent bi indi pare nga saa yoo gëmee ne jëf ji waa ji di def moo gën li yonent bi doon def yow pare nga te tey moo fi bëri moo fi bëri ah ci dëkk bi waaw diw moo doon def li ñun loolu la ñuy def même ci sunu julli sax dañuy sëlmal pare nga gis ku naan soo ko ne lii nag mu ne sama benn paa moo ma ko jox non non sama benn paa non gis nga paa boobu paa boobu ak yonente bi ko ëpp daraja ko ëpp martaba ci yàlla du ngeen ma tontu paa boobu est-ce que war nañu ko tëkkale ak yonente bi paa boobu est-ce que war na laa indil loo xamante ne mooy da ngay bàyyi la yonente bi yoroon ndax paa bi paa bi ku ko yónni ndeysaan bi ma gënee nekk xale jàkk ji ma doon jullee chaque jour damay xeex ak paa yi benn jour rek benn paa ne ma yow da ngaa weddi sa ndey ak sa baay ngay jullee nii nga bàyyi nii ah ah te nii imaam Malik moo ko doon def ma ne ko imaam Malik kenn yónniwu ko mu ne ah mu tiit déggal li may wax ma ne ko wallahi alazim imaam Malik kenn yónniwu ko wala imaam Malik kenn yónniwu ko di ak la ma suñ problème mais imam malik nee na nga ne ko imam malik kenn yónniwu ko mu yaakaar ne da ngaa am bakkaar li wala li nga wax dafa rëy ma ne ko papa mu ne ma ne ko imam malik kenn yónniwu ko yàlla yonent bi la yónni ëllëg kenn du la laaj imam malik kenn du la laaj shafii kenn du la laaj abu hanifa kenn du la laaj ahmed kan lañ lay laaj ci biir bàmmeel maada kunta taqulu ala hada al abdu muhammada waaw loolu lañ lay laaj bu ñu la dugalee ci bàmmeel 30 secondes malaaka yi ne cëpp yëkkati la nga toog ñu ne loo doon wax ci muhammad kooku soo ko tontul di nga am problème de allahu akbar soo tontuwul loo doon wax ci muhammad di nga réccu loo doon nekkee mbindeef di nga réccu lu la yàlla doon bindee xam nga fan mooy fan ngay mujj mooy ñooñu doon wax yàlla yaa laytani kuntu turaba ay waaye aka neexoon ma nekk suuf tey da nga doomu aadama ni mu avancé tey ni ñu avancé fi mu nekk bu la suuf laalee nooy def bu demee sa kaw lal léegi nga bëgg a tëdd nga fekk ci suuf nooy def dàll bi nga sol sax kawas bi nga sol boo amee suuf nooy def ah sa jë boo sujootee mu taq suuf boo sigee nooy def ah faas nga dem yowmal xiyaam naan yàlla eh waay yàlla def ma suuf waay waay suuf laa waroon nekk waay eh waay yàlla def ma suuf waay xam nga ne kon réccu ñëw na na leen yàlla taxaw juróomeel mooy sidqatu rusul fii ma axbarat bihi min sha'nil ghaybi wa ghayrihi il faut ñu xam ne yonent yi ñu dëggu lañ lu tax ndax wax nañu ñoom yonent bi ci mbiru kumpa loo xam ne teg nañ ci sunuy bët kon yàllaa leen yónni moo tax waa ji ma doon wax sànq bi ko gaa yi fekkee ci àll bi muy jaamu xërëm gaa yi di ko génne ci loolu nan ko bàyyil xërëm bi ñëwal jaamu yàlla mu ne leen nan ngeen xamee ne yàlla am na gaa yi ne ko ñu ñu ne yàlla yonent yi mu yónni ñoo ñoo informé nañu xamal ñu ne kenn du jaamu xërëm yàlla la ñuy jaamu yonent yooyu ñoo ñu ko xabaar moom moo yónni yonent yooyu kon yonent yooyu dañoo dëgg ndax xabaar nañ ñu wax nañ ñu loo xam ne ñun teg nañ ci sunuy bët kon loolu lu muy tekki mooy dëgg la yàllaa leen yónni wala mu nga kon mbokk yi juróomi mbir yooyu moom la ñuy jëlee tey ci sunu ñaari aay yi ñu ñaan yàlla sunu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu mu dëgëral sunu làmmiñ ba duñ tarxiis ma bàyyi cheikh bi mu jàngal ñu aaya yi insha allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون صدق الله العظيم sadaqallahu alazim jazakumullah xeyran allah yubarik fiik dan na yàlla bëri ñu mel ni yow mbokk yi sunu borom subhanahu wa taala nee na walladina amanu kiñ doon jàngal da doon wax alladina joo gis amanu tegu ci ñooñu seeni moroom seeni borom texe nañu sunu borom ne xam ngeen ne aaya yi ñu passé samedi la mu doon jàngale mooy doy na waar ñi weddi yàlla duñ dugg àjjana lu dul gëleem dugg ci bën bënu puso wala du loolu la njàngoon sunu borom bàyyi loolu tey ñëw di ñu xamal am na beneen groupe am na beneen mbooloo am na ñeneeni nit mu ne walladina gaa ña nga xam ne amanu ñoom dañoo gëm ñoom nurawuñoo ŋee ñoom dañoo gëm al iman al moom lañ def yemuñ ci iman waaye al amal waxoon nañ sànq ne ñaar yi mooy dugal nit ajana mooy al- lan al iman wal amal mooy ngëm ak jëf soo gëmee lan mooy wane ne gëm nga mooy nga taxaw ci jëf loolu nga gëm waaye gëm kese tëdd waa ji ne man gëm naa yàlla jullit laa dégg fajar ñu naan hayya ala salaa asalaatu xayru min an nawmi naan xaaral ba ma yeewu rek yàlla gëm naa la nag a xaw a sonn rek incha allah bu gaa yi jullee ba pare rek xam naa ne fii ak 8 heures rek dinaa yeewu incha allah jox la ñaar rakka yi yéen ñaa ngi ko jógal mu tëdd rek tëdd rek tëdd tëdd ba kañ ba midi jot léegi nag mu yeewu nag bëgg a sangu ñëw lal si jaada nag di saan iblis di ko xool rek di ko reetaan moo tax gaa yi bañ ne gëm nañ yàlla qaalatil aarabu amanna lu ñu leen wax in lam tu'minu du dëgg du dëgg waaye wax leen ne aslam naa ne leen tuub nañ waaye gëm gi duggagul ci xol yi gis ngeen moo tax mbir mi du mbirum islam kese ñëw ne man jullit laa lu yomb la waaye lan moo jafe mooy gëm gëm te ngëm day yokk day wàññeeku lan moo koy yokk jaamu yàlla lan moo koy wàññi ñàkk a jaamu yàlla yasdaad wa yanqus ngëm fan lay nekk ci xol lan mooy dëggal ne waa ji gëm na maa waqara fil qalbi wa saddaqahul amal il faut nga dëggal ko sa xol al iman fi l qalb wa nutq bi lisan wal amal bil jawaarih su xol bi ne man gëm naa yàlla làmmiñ bi wax ko foog cër yi jëfi ko waaw léegi nag lan mooy différence ki ne gëm naa yàlla dëgg la ana ngëm gi mu ne mu ngi sama xol làmmiñ bi wax na ko waaye bi fajar jotee moom dëggalu ko lan mooy wax est-ce que gëm na ñaata ci ñun fi ñooy taata jàkk fajar ñaata ci ñun surtout dimanche ni gars yi du liggéey dimanche noonu la jàkka yi di videe dimanche jàkka yi sax xam nañ dimanche eh dim ah tey de dimanche la nga ngeen mu fekk imaam ak ñetti nit imaam ana gars yi mu ne tey de dimanche léegi nag moo tax ndeysaan eh, di yow fajar di xëy dem jàkk yomb na trop waaye li may wax gars yi bu koor jotee xëdd dem jàkk julli fajar yomb na mais gis nga bu koor jeexee kon ñooñu jaamuñu woon yàlla xëdd lañ doon jaamu foog yàlla jaral la laajoon naa xale yi man leen kenn ci ñun bu tëddoon ba 3 heures du matin portable am sonné mu xool gis benn xale bu jigéen bu mu bëgg la mu ne ko maa ngi fii ci benn place fii dafa lëndëm gisuma kenn te wóorul nangam nangam kërti kërti ah il faut nga ñëw da ngay tëdd wala da ngay jóg ku may tontu da ngay jóg da ngay jóg da ngay jóg soo jógee nooy def gàddu sa jaasi dugal sërux jël sa jaget nag kërëj kërëj soo ñëwee ba génne ko nag ba indi ko ci dëkk bi nag da ngay am ferte allah gré la ah léegi nag yow yàlla jarul la jóg 6 heures du matin 6 heures xoola julli suba ban heure la ah 6 heures si lan 7 heures mooy lan ah moo koy naañ na loolu koy leer na loolu koy leer na ñëpp jóg nañ léegi yow yàlla jarul la nga jóg 7 heures 6 heures yàlla jarul la ko 6 heures 6 heures yàlla jarul la 6 heures ba pare yow nga ni gëm nga yàlla bu doon benn milliardaire moo la woo nag ne la bon man daal moo la woo 2 heures du matin mu ne bon man ñëw naa sa wetu kër mais dama réer xaw ma fan nga dëkk mais dama yoroon benn 3 millions yu ma la war a jox da ngay jóg wala da ngay tëdd du ngeen ma wuyu ah da ngay jóg lu tax ndax millions yi la waaye léegi li yàlla yor nag moom ak million lu ëpp walillahi xazainu samawaati moo tax mu yokk yaay walakin al munafiqin la yaalamun xamuñu xamuñ ne yàlla moo moom magasin asamaan ak suuf xamuñ ne yàlla mooy joxe moo tax ndeysaan li nit ñi di joxe moom lañ gis li nit ñi mel moom lañ gis waaye xamuñu yàlla te moom walillahi xazainu samawati wal ard xazain la wax allahu akbar yàlla lu mu yor du jeex yàlla suñ ko dul ñaan bis bu nekk daf ñuy mere te nit boo koy ñaan bis bu nekk daf lay mere du la la waykat bi wax yàlla soo koy ñi- soo koy ñaan bis bu nekk day dafay kontaan ci yow doomu aadama boo koy ñaan bis bu nekk daf lay jéppi kon du benn yàlla dafa bëgg bis bu nekk yaa ngi ko tàllal loxo di ko ñaan yaa ngi ko tàllal loxo di ko ñaan ndax yàlla li mu yor soxlawu ko pour ñun la muy xaar rek ñu def benn jëf ñu def benn réaction ci soxla li yàlla yor mun a jël leen waaye boo ko ñaanul nag kon foog ñu ñu xam ne ngëm yàlla dafa am lu mu war a àndal mooy lan al amal moo da yàlla mu ne wallazina amanu gaa ñi gëm yamuñ ci waaye waa amilu saalihaat ñu taxaw ci def farata yeeg naafila jëf yu baax yi ñii maa ngi leen di yëgal ne laa nukallifu nafsan illa wusaha fii tamit beneen problème bu garaaw moo fi nekk ngay wax ñu ne yàlla tegul kenn lu mu mënul man mënumaa yeewu fajar dem jàkk loolu yàllaa ko wax yàlla tegul kenn lu mu mënul noonu lañ lay indil sénégalais waaye tax wooroo eh yàlla mu tegul kenn lu mu mënul man mënuma ko yu tax defoo lii mënuma ko yàlla nee na teguma nit ki lu mu mënul soo waxee rek ñu indil aaya bi laa nukallifu nafsan illa wusaha yàlla nee na teguma nit lu mu mënul damay laaj ci islam li ñu yàlla teg lan lañ ci mënut munoo yeewu fajar dem jàkk te léegi léegi bu ñu la wowoon fii léegi léegi huit ne la six heures du matin ne la fekk buntu palais Macky daf lay recevoir nga yeew ah foofu gën a sori munoo munoo loolu te nga mën a yeewu fajar daw dem dem dem géej rëkk rëkk rëkk daw takk moo tax benn waay benn beneen borom xam-xam nee na soo bañee sujjootal yàlla di ya iblis dana ñëw fekk la ngay nelaw mu ne la jógal nga jóg mu ne la simmeekul nga simmeeku mu ne la solal sa blouson nga sol mu ne solal kawas yi nga sol mu ne takkal daal yi nga takk mu ne la jox ma sa loxo nga jox ko mu jiitu comme xale bu ndaw buy ànd ak papaam iblis da la yóbbu ba buntu géej ba nga taxaw géej gaa ngi nii mu ne la da ngaa bañoon julli fajar nga ni waaw mu ne la acca kàbbaral nga ni nii nga nekk fanaan nii di compter un boo paree mu ne la ruko nga ñëw gis nga nga defe ne ay mouvement ngay def fekk iblis moo lay jullee loo ah ah li ngeen di def lan la ki dem bëggee gars yi ngay dégg de nga gis waaw da ngaa bañoon julil yàlla yaa ngi nii tey gis nga iblis jàpp la tourné la ba nga ne kàcc mu bërëng la sujoo loolu la nga nekk fa di périer takk su ba xëpp ba julli gi paase ba ñëpp jullit yëpp a ngi seen tiyaaba nga jóge fële jibis nag ab yaram muy wéddi li nga bañoon defi ci jàkka ji ak li nga dem defi géej bu gën a yomb bu gën a jege ban mu am tiyaaba mu ngoog kon il faut ñu delloo si xel yi ah yow bu ñu la joxee rendez-vous ci say intérêt nga yeewu su fekkee mbirum yàlla la jarul la yeewu est-ce que ñun jullit lañ dëgg dëgg dëgg réellement est-ce que ñun dëgg dëgg kon li ñuy wax dëgg la te boo ba pare lu doy waar mooy yàlla bu la santee nga ni loolu kenn mënu ko su la nit santee nga def ko mën nañ ko laa nukallifu nafsan yàlla nee na teguma nit lu dul lu mën ñun li ñu yàlla sant yëpp mën nañ ko julli ñëpp a ko mën koor ñëpp ko mën jàng alxuraan ñëpp ko mën azaka ñëpp ko mën tout le monde li yàlla wax fii ñëpp ko mën xam nga lu fi nekk xol bi moo nangu nga def ko wala xol bi bañ nga bañ ko def loolu rek moo fi nekk su sa xol nangulee yàlla nga def su xol bi bañalee yàlla nga bañ ko def mais kenn bu mu layee ne man li yàlla wax mënuma ko déedéet illaa wusaha taqataha wa ma tatahammaluhu wa tuqaddaru alayhi min al amali yàlla lim la wax li nga àttan ak lim la yen wallahi ñun ñëpp ko mën amul kenn ci ñun koo xam ne mënu ko yàlla mu ne ulaayika ñii nga xam ne ñoom a gëm taxaw ci jëf yu baax yi ñii asxaabul janna ñooy waa aljanna leer na ulaayika ñii yal nañ ci yàlla boole asxaabul janna bu ngeen bëggee xam ñan ñooy dëkk àjjana mooy ñii waaye xoolal bu yàlla yemoon fi rek neex na mu ne hum ñoom ñooñu fiiha ci aljanna xaaliduna fa la ñuy sax éternellement lii doyul teraanga lii doyul xéewal te aljanna yi ngeen di dégg aljanna loolu la ak àdduna fii de loolu la yi ngeen di gis de fiiha maa la aynun raat da nekk àjjana bët àdduna bi xool leen àdduna bi xool leen lu leen neex lu mu rafet rafet sa góor ga ba mu demee màkk lu mu wax téléphoné waa këram ne lan ngeen wax Sénégal foofu la bët yem gaa yi ne waa mu ne déet bët yemul foofu de bët fii la yem waaye aljanna it fiiha maa laa aynun raat nit du gis ci àdduna lu mel ni aljanna jamais fiiha maa laa aynun raat lu bët musul gis soo ne cëpp àjjana loo musul gis rek ngay gis te loolu yàlla bu ñu ko waxee war nañu ko gëm wala ki defar géej gii ak li ci nekk defar asamaan ak li ci nekk defar suuf ak mbindeef yi fi nekk kooku bu la nee mun na defaral naa la dëkk boo xamante ne boo fa ne cëpp loo musul gis ngay gis war nga kaa gëm fiha ma la aynun raat wala uzunun samiat waa ji mujjee dugg àjjana malaaka bi di ko yóbbu këram daa jékki-jékki rek sujjóot malaaka bi geestu gis ko mu sujjóot mu ne ko waaw Muhammad lu xew mu ne damaa gis sama borom mu ne ko lii di fleur sama borom laa gis mu ne ko lii fleur la kii du yàlla fleur la allahu akbar fiha ma la aynun raat wala uzunun samiat wala xatara ala qalbi basar xoola yàlla bi muy nettali ci suuratul suuratul insaan bi yàlla di nettali aljanna mu ne wa ida raayta thamma raayta naiman wa mulkan wa ida raayta cey soo gisee samma foofu ca aljanna raayta nga gis naiman xéewal goo xam ne wa mulkan ak nguur goo xam ne xam nga yàlla di wax nguur goo xam ne tey boo gisee Macky Sall rek mu romb la ci autoroute bi moto yi fii nga gis oto yi far kenn du ko taxaw nga naan allah lii neex na de nga gis gars yi ran bu ñuy aéroport ñëpp ran moom kese mooy dox tapis rouge nga gis avion yi allah bu dee bu dee bu dee seen dox bi Donald Trump moom même bu nekkee ci jaww ji dañ koy garder avion yi dañ koy wër mu nekk ci digg bi te loolu nguur kese la alaysa kazalik sunu borom nag di nettali neen aljanna aljanna raayta naiman wa mulkan kabira yàlla moo wax loolu de nguur goo xam ne ni mu rée loolu ngay fekk aljanna yow ñu lay mu lay xaar kon ñun xamuñu li ñuy xaar beneen bi mooy bu fekkoon ne aljanna boo fa duggee sax da ngay dee neex na waaye xaalidiina fiha da ngeen fay sax amatul feebar amul soj amul wànneen amul joxe dépasse amatul julli amul aljana amul julli moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ñëwee yowmal xiyaam muy ramm doomu aadama yi ba mu ñëwee ci kanamu yàlla lan la def dafa sujjóot lan la ko yàlla wax irfa rasaka yëkkatil sa bopp fii amatul julli fii amatul sujjóot irfa rasak yëkkatil sa bopp was'al tu'ta wasfa tusaffa loo soxla mu ne sama xeet laa bëgg mu dugg aljanna yàlla mu ne ko demal nga jël leen nga dugal leen aljanna allahu akbar waxul ali de fii da ngay dégg benn waaye mu ne ñun bala ñu dugg aljanna yéen ñun dañuy dugg ba pare yéen ngeen do yéen sax du ngeen dugg te nga bàyyi ñu dugg du fees di du fees di bàyyi li ñu dugg waaw ah mais nga gis sénégalais bu soxor boo xam ne dana ñi duñ dugg aljanna waaw ñun ñoo yor caabi yi ñun dañuy dugg da tëj suñu buntu yi dugg yéen waaye jaam yàlla lay dugg yonent bi waxul loolu de waxul ana ali xoolal yàlla ne yonent bi loo soxla mu ne ko sama xeet waxul ali waxul Hussein waxul Hassan waxul Fatima waxul Khadija waxul Aïcha waxul Zeynab waxul Hafsa waxul Maria waxul Qasim waxul Abdallah lan la wax ummati ummati ummati yàlla sama xeet laa ñëw pour ñu dugg aljanna allahu akbar sunu borom di ñu nettali aljanna ni mu mel pour nu góorgóorlu lii lépp sunu borom nee na waa aljanna bu ñu duggee nag lan mooy xew mu ne wa nazana ma fi sudurihim min xillin man yàlla balaa ñuy dugg aljanna damay raxas seen xol yi ba mu set duñ fa bañante wa nazana damay rocci damay génne damay raxas ba mu set maa fi sudurihim li nekk ci seeni dënn min xillin ci ay mbañante yuñ doon bañante moo tax gis nga chaque jour da ngay ñaan ci alquran naan rabbana igfir lana wali ixwanina allazina sabaquna bil iman wala tajal fi qulubina xillan lillazina amanu xill baa ngi nii moo tax waa àjjana bu ñu dugg àjjana sax yàlla day raxas xol yi pour du ñu bañante aljanna léeg-léeg nga nekk ab julit dëgg la c'est bien da ngaa gëm yàlla ab sunit nga mais nga bañ sa benn mbokk sunit pourquoi bokk leen mbooloo moom alfalaa la nekk yow ibaadu rahmaan nga wala moom tabliix la wala moom wala moom wala moom wala moom nga dajeek moom ci jàkka ji sax nga xaw ko bañ tuuti même bu lay nuyu sax doo leeral kan asalaam waaleykum salaam bi sax bañ nga ko day am ci ñun ñi xamante nañ xam ngeen li may wax dëgg la rarement léegi man li ma gis léegi nii xaw ma ko woon ñun démb bu ñuy dund fi sunna koo gis sa mbokk la du ma fàtte mukk benn xale bu jigéen wallaay ci xale yu jigéen yi njëkk a muur Sénégal ci la bokk mu jógee géejawaay jëm parcelle boo parcelle melul nii àll la mu seen ku muuru di ñëw rek mu taxaw mu ne mag ji taxawal taxawal mag gi ne ko lan la mu ne ko taxawal rek mag gi taxaw ba ibaadu boobu ñëw jege si ko rek mu ne asalaamaaleykum mbokk na nga def kii mbokk noo tudd léegi mag gi ne ko ya yow taxawal taxawal yëpp xamoo kii naan ko ngaan ko noo tudd nga taxawloo ma fii ci ngelaw li mu ne ko sama mbokk la sama mbokk la bu njëkk ba sax démb nit ñi lu ñuy wax mbokk amul woon tur yaa axi mbokk rek moo amoon amul sax tur mais tey kanam gu leer sax gars yi bañ nañ firi kanam yi koo gis rek ñuulal kanam ba kañ àjjana sax yàlla day dindi loolu moo tax loolu yàlla da koy dindi ba mu set kenn du ko àjjana di gis sa mbokk di ko mere àjjana amul toog wanante ginnaaw fii sururin muta xaabilin dañuy toog jàkkaarloo comme nii amul wanante ginnaaw kenn du gis sa ginnaaw morom ah kon mbokk yi yàlla tabaraka wa taala lim nu defal ci ay xéewal war nañ koo xam ñu dem màngi ko gis nga saxaaba yi bi àjjana réyee ci seen kanam dañoo tuutil àdduna wala ñun nag bi àdduna ngandee suñu kanam faale wuñu àjjana waaw yonent bi dafa réussir ci saxaaba yi mu fexe ba ñu tuutil àdduna ñu xam ne àdduna mais wallahi àdduna jar naa àdduna jar naa daw parce que démb suñu benn papa dafa gaañu yal na ko yàlla yërëm ñu jële ko fii Dakar di ko delloo ngumba ngeewul dem ba yegg sangu ko sangu ko dugg ci armeel yi gas ba mu xóot ñu taxaw di xool mais da ngay jàng àdduna ban njëriñ la am ñaata at nga am juróom fukki at après boo dee juróom fukki at yëpp perte na ana li nga amoon bàyyi nga ko ginnaaw ñaata nga am ñaata la yokkal at yi après boo dee ñaata nga am téeméeri at après boo dee lépp dañuy dindi nii ngay gis ndeysaan ñu dugg ci morgue bi ñun ñoo ko doon sàng nii tekki jaaro yi tekki montre yi dindi yére yi ah lépp dañuy dindi di teg lépp dindi di teg am des jël benn saver bu ndaw muur la commencé sang bu ñu paree sang teg coton sa kaw sang yow ba mu dëgër loo yóbbaale léegi xoolal li nga doon sonn ci àdduna jabar doom kër oto dangam nangam compte banque kërërërër tërë tërë après anamu da nga koy yóbbaale ah fi nga koy bàyyi sa ginnaaw nga yóbbaale alaxira léegi ay bàkkaar yi dul jeex nga yóbbaale ad alaxira lu la yàlla waxul woon nga ut ko dëgg dëgg dëgg dëgg àdduna jarta sonn ku fi sonn daal sonnal ci jaamu yàlla waaye leneen loo sonn ëllëg da nga koy fi bàyyi ñeneen rek nga ko fiy dajaleel keneen rek mooy ñëw nga tabax sa kër ba mu rafet takk say jabar teg am sa lal yu rafet am lu rafet teg teg nga dee beneen waaye ñëw takk sa jabar tëdd ci kaw lal bi jaaxaan tegalay tànkam eh booy nga daa nil ma foofu teg waa ma naan ñoo toog ci wetam ndeysaan naan ko yow sa jëkkër ji vrai con la xoolal fenêtre bi fu mu ko def xoolal fenêtre bi fu mu ko def kii vrai con la quoi yow xanaa bi mu lay takk xamoo kii su xoolal xoolal fenêtre bi fu ko def xoolal bunt bi et puis peinture bi kenn xamul lan la nga dégg ndaw si naa ko dëgg la kay di raay boppam naa ko dëgg yow ana nga yow mi ko liggéeyoon ana nga ay yàlla xira tëdd ñu lay contrôler di la laaj li nga bàyyi àdduna ñu lay laaj li nga li nga li nga bàyyi àdduna gis nga li nga bàyyi ñu lay laaj foo ko jëlee yonent bi saa salaam nee na lan tazula qadama abdin yawma alqiyama hatta tusal arba xisaal an umrihi fi ma afna wa an shababihi fi ma abla wa an malihi min ayna axazahu wa fi ma anfaq wa an ilmihi maza amila bi ñeent dañ lay laaj ku ne cëpp yombal xiyam sa dund gi loo fi defal yàlla sa jeunesse loo defal yàlla sa xam sa alal foo ko jëlee ak foo ko dugal sa alal foo ko jëlee foo ko dugal sa xam-xam loo ci liggéeyal yàlla kon ñu leen góorgóorlu suñu borom loolu la ñu wax suñu borom nee na dindi naa mbañeel gi nekk ci seen diggante tey dugal naa leen aljanna joo xam ne tajiri day daw min taxtiha ci suufam al anhaar ay dex wala kër yi ni mu neexee ay kër yoo xam ne dañuy féey di plané ah ban kër ngeen gis fii ci Dakar mu nekk ci géej di daw am na kër guy daw ci géej am na aljanna kër yi ci kaw ndox la tegu dañuy daw di féey di daw ci kaw ndox tajiri day daw min taxatiha ci suufam al anhaar ay dex allah wa yàlla waxul benn dex de ay dex lem lem gis ngeen ci sa gis ngeen ci àdduna dexu lem ah wala gisu leen ko am na aljanna ci àjjana gis ngeen ci àdduna gis ngeen fi dexu soow ah yaakaar naa fii ku fi bëri bëri soow lu ma am ay nag la am te bala muy naan rat te mun na neex allahu akbar yonent bi rek dex gi mu am aljanna dox bi doxu téeméeri at la moo gën a weex lu weex dex bi soow mi moo gën a weex lu weex ah kopp yi fa nekk ñu ñuy naan ñu koy naanee daa bëri ba toll ne biddéew yi mooy dexu kawsara inna aataynakal dex gaa ngoog daal nee na maa la koy jox yow muhammad inna aataynakal kawsar dinaa la jox dexu kawsara dex googu ku ci naan dootoo marati naan ba yow ma àdduna jeex na soo naanee jeex na dootoo marati naan te am na fa ñoo xam ne Seydina Ali mooy tànk di leen jox ñu naan am ñoo xam ne Omar moo leen di jox ñu naan am ñoo xam ne Ousmane ñi Abu Bakar am ñoo xam ne yonent bi ci boppam moo leen di jox ñu naan waaye am na fa ñoo xam ne yàlla moo leen di jox ñuy naan dañuy taxaw rek ñu gis kopp yi branché wu seen gémmiñ yàlla mu ne yàlla mu ne wa saqaahum rabbuhum saraban tahura ñii yam nan yàlla maa leen jox ñu naan wa saqaahum jox na leen ñu naan kan rabbuhum seen boroom yàlla du jël loxo di leen kap kopp yi ñooy branché wu seen gémmiñ ñuy naan yàlla moo leen jox ñuy naan moom loolu kay te àjjana lu gën a neex mooy gis yàlla waa àjjana bu ñu duggee àjjana ba xéewulu ba ba yàlla bàyyi leen ñu noos noos noos noos ba yaakaar nañ ne yàlla mu ne am na lu des ñu ne déedéet déedéet fii nii kay mënatoo indi leneen fii la ñu yem jeex na fii boo indee beneen tamit ñun yàlla mu ne des na de ñu ne lu des yàlla mu ne ma muri rido bi dox sama digganteeg yéen ngeen may gis loolu am na ñoo xam ne mënuñu ko dékk gis yàlla wujuhun yawma idin naadira ila rabbiha innakum sa tarawna rabbakum kama tarawna di ngeen gis yàlla comme ni ngeen di gisee jant bi yonent bi moo ñu ko wax waaye am na fa ñoo xam ne yàlla da leen di pine du ñu gis yàlla kalla innahum an rabbihim yawma idin la mahjubun kenn du ñu gis yàlla yàlla leen pine kon taraanga bu gën a rëy mooy ziyaada boobu yàlla wax allahu akbar gis yàlla bu ñu jógee àjjana yàlla day indi yonente yàlla daawud mu jàng zabur daawuda xam ngeen nu mu doon jàngee daan jàng picc yi sax dañuy ñëw di daanu ci kaw ndax nu mu neexee su daawuda jàngee ba pare yàlla indi muhammad mu ne kaay jàngal gaa yi fii ñun dañuy déglu lan ñoom muhammad Guèye di déglu ay Sudais di déglu ay Matrud di déglu ay Mahir di déglu ay Basfar di déglu Xusayri di déglu su koo déglu rek da ngay jooy ko déglu da ngay kontaan te ñooñu alxuraan bi wàccul woon ci ñoom kon ku déglu muhammad nag soirée yooyu jar naa muñ de soirée yi loolu mooy soirée kaay leen àjjana ngeen toog ñu toog yàlla mu ne ana daawud mu ne maa ngi nii mu ne jógal jàng zabur loolu soirée la de gaa yi toog ana muhammad mu ne maa ngi nii mu ne jógal jàng suratu rahman loolu mooy soirée gaa yi bu gaa yi jàngee pare yàlla mu ne nag bàyyi leen ma jàngal leen tey yooyu yan nopp ñoo koy dégg yan nopp ñooy déglu loolu yan nopp lañ koy dégloo yan xol la ñuy dékkoo loolu est-ce que loolu mbokk yi jarul ñun ñëm ñu muñ pour njaamu yàlla pour ñu dugg foofu jaru ko ah xoolal su koor jotee da ngay woor nga muñ parce que xam nga ne timis a ngi jot muñ muñ parce que timis a ngi jot yàgg yàgg yàgg dinaa lekk timis a ngi jot yàkkamtiwuma waa léegi est-ce que mënuñu muñ kon lu ndaw lii am fii pour ñu mën a dugg àjjana ah kay na leen yàlla dimbali ci loolu mbokk yi sunu borom subhanahu wa taala mu ne ñooñu kër yi ma leen dugal tajiri day daw min taxtihim ci seen suuf al anhaar ay dex gis nga gaay yi buñ duggee ñoom waa aljanna lu ñuy njëkk a wax wa qaalu alhamdulillahi allazi hadaana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadaana allah allahu akbar lu njëkk lu rëy lu gaay yi di sentir mooy ñun ah ñoo ngi sant yàlla ajjana ko fa dugg yàlla la neex ajjana ko fa dugg yàlla moo la programme pour nga war a dugg aljanna yàlla moo la boole ci gaayam yi xool leen sunu àdduna bi tey ñiy topp yàlla ni ñu tuutee ñu topp dëgg ni ñu tuutee ni ñu tumurankee ni ñu wéetee ni ñu raflee ni ñu ñàkkee ni ñu maree mais terewul ñoo ngi jàpp ci seen dëgg moo tax bu ñu duggee àjjana lu njëkk lu ñuy reconnaître mooy alhamdulillah ñun de nañ sant suñu borom du demb du sama sàmb du kenn ñun yàlla moo nu baaxe moo tax dañuy sant yàlla lu ñuy jàng fii mooy ku am xéewal koo war a sant suñu borom ñii bañ duggee àjjana xéewal gu gën a rëy gu ñu am kan lañ sant suñu borom mais fii nañ santal sa ndey lii kat sa liggéeyu ndey la li mu def ci kër gi lii kat sa baay guerrier la moo la formé moo la doon fayal waaw yow ngand nga nag ponkal nga rek ngay dégg wala ah xamoon nga ne bi ma la yóbbee ci paa bi xamoon nga ne affaire yi day réglé wu waaw bi mu la sangee bi mu la diwee bi mu la takkalee lii ba mu la tibalee suuf si ba mu la wëralee guy gi ñooñu defuñ dara yëpp yàlla la fa min allah wa ma bikum min ni'ma wa ma bikum min ni'ma fa min allah xéewal gu tuuru seen kaw rek yàlla la du kenn moo ne waa àjjana bu ñu duggee àjjana ñu sant seen borom ñu ne alhamdulillahi allazi ñoo ngi sant yàlla mi nga xam ne hadaana li haza moo ñu jubal ci lii moo ñu indi fii tey ñun de wa ma kunna li nahtadiya mënuñu woon nekk mukk di jub lawla an hadaana allah bu ñu yàlla jubal woon gis nga lii reconnaître la ay fee yu am ay mbir yu am jullit bi xam ne du moom du ay pexeem du ay kattanam du mën-mënam du coobareem waaye kan la allahu subhanahu wa taala ñoom lan la ñuy wax laqad jaat rusulu rabbina bil xaq ñun de ñoo ngi seede tey ne sunu yonent borom ya la ñu indi woon dëgg la allahu akbar fekkoon nañ yonent naa ni yonent ya naan topp leen yàlla bàyyi leen bokkaale def leen nangam bàyyi leen nangam ah ndeke yonent ya lañ doon wax dëgg la laqad jaat indi woon na rusulu rabbina sunuy ndawali boroom ndawi boroom bil xaq ci dëgg foofu gaa yi di wax noonu rek ndeysaan di sant yàlla li waaj gaa yi di wax ndeysaan boo demee màkka ba nga wàcc avion bi nga dugg kaar yóbbu sa bagage ba nga wàcc hôtel bi nag ñu commencé ranger bagage yi nga dégg jékki yéeg rek dégg jumaay yonent bi ñu nodd allahu akbar yi gaa yi commencé ah sa waay man de julli ji naa nit ñi génn bërëj bërëj hôtel yi jumaa ji foo toll di son soore yi de bu wàccee guddi gis lumière yi mu mel ne bëccëg ah bon moo ñu naan fii la bët yam dañuy nax rek lu raw loolu la waa àjjana di gis di nga waa àjjana foofu ñu dugg àjjana di sant yàlla ah di xool di gis loo xam ne mosuñu ko gis dañuy jékki-jékki rek ñu woo leen wanuudu allahu akbar ñu woo leen dégg benn kàddu naan leen antilkumul janna de loolu ngeen doon dégg ci àdduna ñu naan leen àjjana àjjana ngeen naan waaw mu ngi ne mu ngi nii nag mu ngi nii léegi nag lan mooy wax ji uristumuha jël leen donn leen ko yéen a ko moom ku nekk xoolal appartement boo bëgg a dëkk nga dëkk allahu akbar yéen a ko moom uristumuha xam ngeen lu tax ngeen am ko ñu ne ah ñu ne bi maa kuntum taamaluun yéen a ko liggéeyoon ci àdduna bi gaa yi nelaw yéen a yeewu woon di julli ji bi gaa yi lekk yéen a wooroon bi gaa yi liir ay journaux seetaan ay théâtre yéen ngeen toog di jàng seen alxuraan di def seen azkar bi gaa yi dugg ci stade yi yéen ngeen dugg ci jàkka yi seen jëf yooyu ngeen doon def bi ma kuntum taamaluun li ngeen doon def la leen yàlla fay tey kon mbokk yi dar suba ngoog yal na yàlla def suñu dégg ak topp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu